ndax bàkkaat ñu ko xam bàkkaat bu ni ñu ko xam fii ci gune yu bari wut de man mii def naa ko taay boobu su ma yàlla daan xàndat mu mu dal ma yaamal lekke su ndaw boo xamee ne fajar jot na ñax mi dafa tooy lay su ko dee nga dem di def nii pundi bi li ñor di dem ci biir lekket gi boo defee ba mu diis nga dem fogg ko dellu commencé bu jant bi yëkkati ko ba lay bi jeex ñu ba ndax boo ko defee nii dafa tasaaroo dem ñax la rek ñax bi nga xam ne picc yi ñoom la ñoo dundee waaye boo boo ko defaa noonu weer ko ba mu boo ko weeree ba mu wow nga dëbb ko dafa génne pepp mu weex tal mu weex tal waa pundi la rek waaye dama koy wax waaw mooy findi xam nga soosee ne findi wolof ne pundi <laughs> waaw <laughs> bu ko defee nag bu ko defee loolu moom la ñoo suusal def ko ñeleŋ ñeleŋ sa fi mu ne mag ñee ko man waaye gunee ko ci sant ñeleŋ lu ko liggéey bu loolu wéyee ñu jàll ci mbànq kam ngeen mbànq ak gàcce gu ci àll bi la bu saxee bu dafa meññi mbànq naa si dafa meññi dog ñor xonq cooy ñuy dem di ko rocc di rocc di rocc suñ ko roccee di ko ah ci janj yi nekk ci gannaaw dëkk bi ñu dem yer ko fa ba wow ñu dale ko indi dëbb ko mu toj nga génnee doom ba ca biir moo raw xet moo gën a weex nag bita kola ba gën a weex moo ko gën a weex su ko dee loola it dañ ko def ci beñwaar ci ko ndox ba fees bàyyi ko fa ñetti fan ba ñeent ba juróom su ko dee weextaan wa wàññeeku ñu jàmb ko xent ko dellu ko weeraat ba wow ñu dëbb ko muy sunguf moo di cere mbànq loolu lañ daan wax cere mbànq loolu mooy cere mbànq boobu nit sax la ji waaye xaj bu ko lekkaan dee xaj bu ko lekk da nga dee cere mbànq xaj bu ko lekkaan dee waaye nit ñi ñoom yàlla def na ñu ñu ci doon wéy te deful leen dara te daf doon joxe wét gu yaram doo xam xamot bi bay dem lopitaan booba lopitaan xamut fii lopitaan <laughs> xamut fii ñam yi yax yooyu lañ daan lekk moo du daan jox wér gi yaram nga xam kattan doo dem ci docteur de faju gaañu gaañu boo ko dee ñu dem ci rat bi rat rocc ko dëbb ko da ko fajee gaañu gaañu bi mu wér kàkk loolu moo doon cosaanal mag ñi biñ jógee ci loolu koraay xam nga koraay witteen witteen buñ ko lilayaan ba dér ko nii xam nga dafa am ay xoox xoox yooyu dañ ko daan dajale place yi boppam bu baree ga dale ko dubb moom itam dafa am xoox ci biit nga dale ko def laax ñi ko lekk mooy laax kuraay loolu ci waaw ci biiram xoox bi ci biit waaw loolu mooy laax kuraay waaw loolu moom daal nañ ci jaat njëg jafe-jafe. laax bi dafa ànd ak de daa amul moom kay laax ko rek mu ne ak cafaay foo ko doo déggee cafaay lu neex la di. soow soow booba itam xanaa nga dem ci bu yëg sànni bu lee nga dale ko jàmb dem bi su doo sukar de buy bi nga jege len doo xam jege booba gerte de xanaa booba fekk ñi nga xam ne daan nañ dem ci àll bi di génnee lem de denc nga am lem def ko ci nga sotti loolu moo de li nga xam ne moo leen li ñoo fasee laax yi ah waaw ñaam bi boobu ñi ko daan xam dañ ko daan xolli dog ko ay dog dog xar ko weer ko moom it bem ba nga xam ne wow na nga teg ci bem nooy nga def ko laax laax yi ñaam nga def ci cere loolu moo doon dundam mag ñi moo taxoon ñu wét ak fan wu guddi sax gannaaw bi ñu ci loolu dimb moom laa pratiquement li ñu jëlaat dimb moom it ci àll bi lay li nekk daan nañ dem sàkk ko indi ko xalar xuttan bi ah ko xoret xoret moo de biig bi xoret xuttan bi mooy der bi ngaa génnee xoret moo de fi doom bi newoon ci biir aw dereng fa nga dale ko génnee moo de xoreet <laughs> boo ko génnee noonu ba pare nga dale xuut fekk yaa nga xam ah, jombut nga xam tuuti si ay ay yooyu nga dale ko baxal da ko togg da ko togg togg togg bépp ñor nga xeent nga xeent ko boo ko xeentee ba pare fekk ñor na ci biir nga dalee jël sa eh, ñama-ñama yu sew yi def ko ci yëngu ko bem ne nii. déedéet booba sax Tamba Diagne bari hut de booba Tamba Diagne ak seegut ay nete tuux ak ay gerte xaayaa tuuti rek soo ko ci dee ne yëngu ko bi nga xam ne fi mu nekk nii maase na ñu dal lay yàq foote ñu tuddee ko suuku nuuk waaw limb tiga waaw nga nga loolu la yow lekk ci ba regg dal la tëb dal gune yi sawar waaw waaye mag ñi ñoom duñu duñu regg de ndax da ngaa taaj du doy te da nga néeg néegu laa lekk gune yi xiif su ko defee da tiim gune lekk yow ngay mos tuuti rek ba xam ne gune yi suur nañ a ah, su desee tuuti nga ñit ko jax loola dal naan sa ndox gune yi ñoom tëb de boobu kenn xalaatul loolu déedéet diwtiir sax xëy na moom moo fi njëkk ndax moom waa ñuul la da nga aji na ay ji suma yaay mii def daan togg ñuul ñu daan xenu ji ñuul ji meemee ñu dikkee mu togg ko jële ko def ci bari ko ñu ko jamb ko foofu ndox moom a sotti ci kelera di ko ca togg ba nga xam ne fiixi mi wàcc na diw gi ci kaw ñu ko mooy diwtiir li li ci wàcc ci ñu tuddee ko bilaajo boobu dañ ci daan togg saabu di ko fóotee booba saabu yombut booba saabu yombut biñ jógee ci loolu ñu dem ci affaire yi ñàkk ndox mi hmm? ndox moom si ñetti dëkk yi masuñ koo xam kër jarga muñ a génn man kër jarga laa njëkk wàqi naa fa teen ba sonn te bi ne fii wàq bi ci mujj man mii maa ca duggoon wàq bi ci mujj tax boobu kilifa fa am baat bu ñu naan wàq ñuy su ma yaay dafa tàngoon su dee mën a acc ci biir du ma ñemee bañ di génn wàq jigéen ñi dañ fi daan neb ba nga xam ne reer jot na ndeg root su nga cee ñu tëddal ko booba jigéen daanu nelaw de dañoo tëral teen bi ñu ne nañ ko nañ ko tëddal ba mu ba mu xam ndox muñal tëddal mooy mu ñañ ko muñal ba mu defaat tuuti ñu dellu ko rootati ba mu jeex ñu ne ci fi la ñoo ne ba fajar ñu julli fekk leen boo xamee nawet bi ñëw na ñu boole nga caatu mii loolu nga caatu lañ ko doon wax de rooti ci xaal bi kër mbaam xaal yi daan gas pax yi nii ñu ko wax xasarnde su tawee fay fees dee ndox bu ko dee ñu xenu ay bañ waa topp biir xaal bi ni di wóor boo ci gis tànk di xenu di yóbbu nga dikkee sol tatiseur boobu loolu moo doon affaire ndox mi ñàkk mi ci dëkk bi ba tey na baaxagul ñu de. bëggoon naa nag nga dugg wax nañu ci mbiri sowen sowen yeeg saareen saareen yi waaye bëggoon naa nga dugg ci diggante yi kóllëre naka la ko nit ñi daan dundee naka lañ koy dundee tey sutura naka lañ ko daan dundee nuñ koy dundee tey xorma gis nit bëgg ko rek nit la te bañ ko xeeb boobu ak jamono jiñ toll nii sori la boobu yow kii dana ñëw ci su suma man ci taay bi mag de ñu dégloo lu fa réngi-réngi moom moo ko génnee borom kër ga sax du ci wax xale bu ci def lu ñaaw keneen ay ga ci sa gat bi nga bëgg a dee kenn du wax mag ñi luñ takkaa dajeexaan ba takk ba waxtaan ba nga xam ne fi mu ne d'accord nañ ne lii baat ñi may tudd a génn ne mag ñu wax na rek jeex na ca booba laa de waaye fi mu ne nag loolu dàqu na de booba borom kii di mag moo gis juge fii dañ daan daje fii waxtaan ñu ñoo dëkkee affaire yi dëkkin bu rafet ma ñàkk ñëw ci yow nga jox ma te kenn du ko yëg sax kenn du ko yëg ma liggéey su ma xamee delloo la bu ma xamul dikk na ah sëñ bi la ma joxoon de def na daal ngay béy rek mu wa waaw baax xamut waaw baax rek ba beneen yoon yàlla baax na ku si ndéewaan doole da nga dem si kii am doole mu dimbale te yàlla tax te du ko waxtaanee de dem naan maa jox kii diw maa jox lii diw kenn daanu ko def te luñ la ci joxe lañ la jox laa laaj de duñ si teg bu rëy de waaye juróom